bismillaahi rahmaani rahiim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli mbokki déglu assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu asbaxnaa wa asbaxal mulku lillaah walhamdulillaah wa laa ilaaha illallaah wallaahu akbar allaahumma innaa nasaluka xayra maa fi haazal yawmi wa xayra maa ba'd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 jaajëfal alxaaji sëriñ si Sylla mu nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix su ak teraanga ak poche def dara ma ngi woon ci melokaanu sëriñu daara melokaanu sëriñu daara melokaanu sëriñu daara ginnaaw bi ñu jógee ci melokaanu euh, jàngalekatu tubaab <laughs> walla walla éducateur walla du ngeen ko tuddee baax na waaye daal liñ bëgg a wax rek mooy melokaan yi ñoom ñaar ñoo ko bokk waaw ku ci nekk am na lef moo xam ne yaa ko ci moom booy lim melokaan yële walla ngay lim melokaan yi waaye pénc mi ñoo leen def ñaari jàngalekat moo tax ñu def leen ñaari pàcc ñun tamit waaw tabaarakallahu bi ñu yëkkati jataay bi démb ñoo ngi doon tàmbali wala ñoo ngi doon continuer lim melokaan yi waaye bu duggoon nag ci melokaanu muñ jàngalekat sëriñu daara ku la dàq muñ moo la dàq jàngale muñ googu nag dafa am solo lool waaw muñ ndax lu ne am nay benke ñenke waaye daaraa ko ëpp ku moom waaw daaraa ëpp ku moom waaye comme ànd yow ci say benke ñenke ba mu jeex bu la bàyyee nga nite waaw bu la bàyyee nga nit nettalee jaar-jaaram ci kokki mbaa mu nettali la jaar-jaaram ci pir wala ay jaar-jaaram ci daar ju mën a doon ci daar yi boo xoolee nit ki danga xam ne kon kii fi mu jaar moo ko tax mel nii te loolu dafa baax ci nit tumuranke yooyu benke ñenke yooyu Haj Malik moo koy wax benke ñenke waaye benke ñenke yooyu tumuranke yooyu dafa baax ci defar nit ndax nit ki bu amee aw fas du ko wut du gis ngeen ni mu koy def oto yi sax léeg-léeg nga gis Mamadou saar mécanicien bële ca Fadia mu mu mu yorob oto teg ko ci tali bi ne day seet ba xam waaw maanaam eh, la dawal ko lu bari nag door ñëw ne moteur bi nangam nangam bu dee mool ñu dañ koy wulli bu dee nit dañ koy yar waaye mu ànd ak muñ yarekat bi nga xam ne moo nekk ci daara di sëriñu daara day muñ day muñ ca xam ne inna allaha maa sabirin mu muñ muñ goo xam ne du ko dugal ci muy àttee ay ay ay santimaam ndax àttee golo yi ci say santiment mën naa dugal nit ci mu nekk dóorekat te dóor bu njëkk bokkut ak dóor yi tey ndax li nit ñi daan lekk démb gone tey lekkuñu ko te ganaar yi xew ñu ci dund seen yaram mbokk te ganaare doon xew démb ña ca doon dund su ne lekki jamono yii it bokkut ak lekki jamono yooya booba duma xale bokkut ak duma xale tey xale tey boo boo booy karawaasi rek yaram wi dagg xale yi démb daanañ leen dóorti ti yaram ma du dagg <laughs> waaw dañ leen dóor yaram ma du dagg waaye xale tey moom moytu rek waaye loolu li koy muñ li koy indi rek mooy muñ te bañ di jëfandikoo say say santiment ci xale yi danay wax ne boo tiimee xale wan ko dara xamu ko balaŋ ko corriger moom bala nga ko corriger moom seetaatal mi ngi ko ko joxe seetal sa bopp yow tam seetal jëntukaay yi seetal lépp ba mu daj su boobaa na nga xam ne xale bi xëy na man war na koo mën a xam peut tappale la waaye su boobaa it bul jëlub yar nag faraj dóor fii te tabarka ëpp na waaw lu am solo la kon muñ jàngalekat na ko def isbiru wa saabiru muy muñalante mooy muñal xale bi tabarkalla euh, seet yi nga xam ne foo ca jaaree dars bi àgg nga jéem a jaar foofu bu dee dars bu rëy nga wàññi ci melokaanu sëriñu daara ba tey mooy mu yóbbaale ñaari yëf ci liggéey bi ibda ak ibtikaar daax lu am solo la mooy yi ay yëf waaw créer ay yëf di xalaat di teg dafa baax ci sëriñu daara lool nag <laughs> waaw keroog bi suñ daar ji xalaatee suñu yooyu ñuy wax ay vingt six vingt wala bu njëkk ba ndeysaan fàtte naa nu mu waaye daal kere bañ ko xalaatee kere moom colonel Sadikh Niang <laughs> gis na mu bëgg mbégte moo xam ne kenn musu koo gis warkàlla <laughs> waaye wax na dëgg gis nga sëriñu daara daara yi léegi nañ ma baal <clears throat> ñu séq daara tey boroom mi am-am waaw ceetaan mi dafa bari ci daara te ku ne sag donga kaay yalwaani ñu ne on oh. moo tax sëriñu daara léegi yi fokk ñu nekk sëriñu daara akus lëf c'est-à-dire sëriñu daara plus di xalaat di di ibda di ibtikaar waaw daara joo xam ne dangay fexe ba mu am mbooloo mu tudd yaayu daara wala leen góor yéen yaayu daara yi ndax boo demee ca école moom lañu ñu tuddee parent d'élève noonu la ko école di tuddee parent d'élève bureau parent d'élève parent d'élève nangam waaw dégg naa président parent d'élève national loolu mooy ci daara moo tudd yaayu daara yaayu daara avec es loolu ci li waa daara xalaat la bokk waaw waa daara ko xalaat yaayu daara su ko defee yaayu daara yooyu ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne dañuy bokk ci luy suqali ak sutu soutenir daara kii jël nangamam def ca kii jël nangamam def ca kii jël nangamam def ca ñu boole takk indil daara waaye leen góor yaayu daara soo seetloo ca ba yonent ba jóge ci xunti ma ba mu ñëwee dafaa fekk yaayu daara ju tudd Xadija bint Xuwaylid radiyallaahu anhaa ci waaw moom la fa fekk ñëw ne ko zammiloo nii zammiloo nii li muy tekki foofu mooy daara dafa soxla couverture zammiloo nii daara dafa soxla couverture couverture day ànd ak nourriture je pense que noonu la <laughs> xam naa waaw couverture ak nourriture <laughs> kenn mus ko gis rek waaw daara da koy soxla gis nga yonent bi léppam am njàng la sallallahu alayhi moo tax sunu magum daara ma Sidi Lamine nu ko yàlla yokk yërmande waaw daara ma seet moo daan wax ne yonent bi léppam lan nu may moo tax lu nu neex wax ko mu ne waaye ñu may sunu lépp <laughs> am na ci loolu boo ko tuddee rekk tabarkal la yët jóg waaye mu ñëw ci kër gi suñu ay xadija nekk yaayu daaraam daal di koy dalal mu ne zammiloo nii waaw sàng leen ma daara daa soxla càngaay càngaay li mooy yëre yu xale yu sol càngaay li mooy euh, fu fu fu xale yi dëkk càngaay li mooy lu ñu sàngoo waaw tëni yeeg yëpp ci ci loolu la dugg tëni yeeg lépp ci mi ngi dugg ci zammiloo nii waaye sangu day fajub sedd sedd nag lekk da koy faj kon mooy nourriture def ciy am waaw loolu daara kere la tudd yaayu daara yaayu daara dellu ca daara ju njëkk ja muy daarul arqam ibnu abil arqam wala euh, walla euh, jabalu nuur jabalu nuur xaaru xiraa waaw ñu dellu ca waaye daara day soxla sol aw dàll wuti solution soo ko seetloo kere bi su ndey ja noppee ca lam doon def maanaam wutal yonent bi càngaay wutal ko lu mu lekk daa sol aw dàllam nag dem seeti tonton baraxatu ibnu nawfal daara it ci ibda ak ibdikaar dañu soxla ñoom tam ku dox loolu ndax danaay wax leen na ne euh, sama bopp nag laa koy jëmale su ma ñu waxee ma leen ab sëriñ du muus waaw staff bi ñooy muus kon suñu yaay Xadija sol aw dàllam dem seeti waraqatu ibn Nawfal pour lan pour euh, taalibe daara bii ndongol daar lii di sallallahu alayhi oh, <laughs> mu am solution am na solution kër ba mu demee daara yi itam léegi yooyu lañ dul am nit day ne ci koñ bi rek ay daara ji nangam cay seen daara ji waa leen góor waaw na rek tabarkal déedéet déedéet daara ne ci koñ bi ñépp ci war a dugal seen loxo ndax réserve la sa Ibrahima xaliloo moo koy wax daara réserve la réserve mooy lan bu ñu soxlaa ca la ñuy dem waaw ca ca gono yooyee bu ñu soxlaa ilimaan ca la ñuy dem mhm. bu ñu soxlaa bilaal ca la ñuy dem bu ñu soxlaa tudd doom ca la ñuy dem bu ñu soxlaa ngénte ca la ñuy dem taxawu ko faatu ca la ñuy dem yépp ca la ñuy dem sa réserve boobu nag comme comme moomeelu xeet wi la patrimonial la xeet wi yépp a war a xam ne daara siin yëf la moo tax dongab daara bu daan yelwaan day wax laara bi laaraan mooy lan mooy allahu rabbuna baat bi lañu kii rek waaye allahu rabbuna moo daan wax loolu mooy laara bi laaraan allahu rabbuna mooy man mii di jàng ak sëñ ba ma bàyyi ci kër gi mënuy jàngal ak yow mi ma taxaw sa buntu kër ñun ñépp yàllaay sunu borom am na nag benn pacte bu ñu siñante suñu digganteeg moom mooy sëriñ bi dama bëgg jàngal alxuraan man dama bëgg jàngal alxuraan waaye maag sëriñ bi amuñu lu ñu añe ma ñëw ci kër gi wan ne la allahu rabbuna yàlla mooy sunu borom man ak yow moom kon jox ma lu ma añi ndax ma mën a dem jàngi loolu la dongam daara daan def waaw allahu rabbuna laara bi laaraan <laughs> waaw barkalla mu ko defee kër gi ne am yàlla jox la ci jox la waaw waaw am yàlla jox la ci kon ibdaa yooyu moo tax daara léegi daara yi nga xam ne daara internat lañ nga gis ñu ne daara ji am na boulangerie waaw leen góor daara ji am na kaar waaw benn bis buy dem ak a dikk waaye leen góor <laughs> ko ak dem dikk yéen nga xam ne moom la gaa yi moom ji am na poulailler daara ji am na tool waaw yooyu nga xam ne moom la daara di di di def ba am alimentation. Euh, alimentation bu daara di créer yooyu loolu dafa bokk ci sëriñu daara lim daan def ba dema ci sunu mag ñi ku ci nekk daawoo def yi de waaye danga nga tool waaw kenn fàttiwul ci ñun ña jaaroon daara yi laa ji màggat jéey ñaari toolam yim amoon waaw benn tool baa nga nekkoon yoonu kolobaan waaw sëñ Modou Boussa Kane xam naa mi ngi may dégg ñoo bokkoon jenn daara ndeysaan ak Modou Kane daa génn àdduna ñoom ñu nga dëkkoon ca Colobane ndeysaan waaw ca seen yoonu dëkk ba fala mbay alaji mag ji amoon benn tool beneen tool ba nekk ca yoonu tëli ba waaw yoonu tëli ba ndeysaan allahu akbar bu ñu bayee ba noppi rek def dugub ci sàq mi waaw wàññi jiw jaay la ca des waaw jaay la ca des loolu na ko sëriñu daara yi di xalaat àdduna toll foo xam ne il faut ngay créer ay projet di xalaat ay projet di def waaw loolu àdduna da ko soxla waaw waaw ba demee ci sunu màggi daara yi nekk ci dëkk bi te créer loolu ba demee fële ca sunu magom daara mële Alioune Lo waaw xalaat na ba créer lobb bii tabarkal la mattum maam jaara mi waaw <laughs> mattum maam jaara mi dégg ngeen bu ñuy tafsir ñoom moom mooy ànd waaw C3S Serigne Seck gis ngeen ko tabarkalla kaar kaar waaw sunu mbokk mi Serigne Mbuub tabarkalla xam naa dana ñëw ci sponsor yi incha allah <laughs> waaw suñu mbokk ma leen di sant ja Ablaye Ja moom tam xam naa dana ñëw ci yëf yi ak ak ak ak loolu loolu sëriñu daara da ko daara daf ko soxla al ibdaa wal ibtikaar daara daf ko soxla waaw ñuy xalaat di kër yi ay yëf ay entreprise ay société ñu bari na ca di liggéey dama ne loolu daaraa ko moom daara daf ko soxla bu leen defee ne école rek wala université wala yooyu ñooy déedéet daara tam daa soxla yii waaw tabarkalla loolu ci melokaanu sëriñu daara la bokk ndax dana tax daara ji sukkandiku ci yalwaan mi wàññeeku mbaa mu jóg fi mbaa mu jeex tàkk ndax ñàkk pexe ki bëgg-bëgg moo ko daan waral ah, ma jeexal ci sëriñu daara yooyu jëme ci ñoom quelques conseils <laughs> waaw mu jëme ci ñoom quelques conseils en benn membre ci benn barab bu tudd conseil économique social et environnemental ma bëgg jëme quelques conseils ci sëriñu daara yi di san waaw <laughs> waaw ñu baal ma sëriñu daara yi la ci jiitu mooy sëriñu daara da daaiman xuttatan li nafsika wa amalik yow sëriñu daara bi del liggéey ci programme loolooy conseil bu njëkk bi un del liggéey ci programme programme sa bopp en tant sa jëmm ji waaye programme li ngay liggéey ndax kuy liggéey te liggéeyul ci programme day palamtu te kuy palamtu mën naa jàddu yoon te ku jàddu yoon sëñ kër Si nee na ñi ne fii yoon wi nekkut mën na laa jëfandikoo ca ba muy jàngale daayira waaw yow jàngalekat bi deuxième conseil bi mooy na nga sawar ci yër ay téere nanga sawar ci yër ay téere rawatina téere yi nga xam ne dafa màcc jëm ci li nga jàngale mu jëm ci tarbiya ak ñoom seen yooyu waaw imaam Fadilu Taal dafa mas a gis ma yor benn téere man xaw ma sax delloo si na ma koom déet waaye <laughs> yàlla ko yàlla yokk wér waaye ku bëgg yër la ci wàll yooyu parce que tarbiya dafay dafay évoluer li nga yor tey bu déwee bu subaa mën naa soppiku li nga yor ren bu déwee ne mën naa soppiku kon nanga nga sawar ci yër yër léegi yomb na lool ndax téere yëpp la gaa yi dëxañ ci internet bi loolu benn la ba ca tege mooy foo dégg ñu woote lu jëm ci séminaire congrès conférence te loola jëm ca wàllu tarbiya lépp loo jàppoon na nga ko bàyyi te dem fa fore fag mat lépp loo jàppoon na nga ko bàyyi te dem foofa fore fag mat gis nga ñuy waxtaan ci rajo yi ak ci tele yi ustaas yooyu saa boo tab yemee ci kenn ne fa tekk bàyyi fa sa déglu lu gàtt-gàtt bis boobu da am bind bu rëy wala bind bu ndaw boo xam ne bii kii toog moo la koy moo la koy waxal ndax ku raw ñëpp amut ku raw ñëpp amut ku raw ñëpp wa fooqa kulli si ilmin alim waaw waaw sëñ si alxalifa moo ñu ko doon wax ca kera ba ñuy tëj burdu ba te jox sëriñ Cheikh mu doon def waxtaan wa mu ne suñu waxtaan yii nga xam ne bu ñu jeexalee burdu bi jox kenn mu waxtaan kenn du ko fekke ba mu jeex te amu matt goo ci fore ma ne ko ci lu wér kon boo déggee rek ñu ne dawra am na wala mu'tamar am na fu fu ñu koy defee demal nga fekke ji ko amoon nay jamono yaakaar naa mi ngi am ba léegi sax almamlakatul arabia saoudia ci seen digganteeg réewum Sénégal ñu fi daan yebal ay jàngalekat ñu fa ñuy def ay da daw dawrat yu mel noonu nga xam ne ay ustaas ñoo fay jóge dajale seenu tuut ñëw fii ci réew mi di di di nu wan ay yëf ba noppi di di di di di nu yóbbal <laughs> maanaam bu ñu jàngee ba wàcc bu ñu ñibbi ku ci nekk njox la paas bu la yóbboo fa nga jëm loolu ab affaire bu amoon solo xaw ma ne mi ngi am ba léegam déet am na jàngalekat yu bari yooyu yooyu dëgg ca réew ma ñëwoon nañu fii kii yor ki yor fiq kii yor tarbiya ki yor nangam ki yor nangam macha allah bu ñu ñëwee joxe loolu ba la ñu indi leen grande mosquée ñuy def loolu dafa am solo foo ko dégg demal foo ko déggi demal waaw dawraat yooyu am na solo loolu lool la moo tax sëriñu daara bu mu xeeb yooyu mooy troisième tomb bi bu ñetteel bi saahibil murabbina al mutamayizina waaw wa taalim minhum mooy ab jàngalekat na fexe xamanteeg jàngalekat yi tey ànd ñoom hmm? waaw waaw sa ànd na na gën a bari ci ànd ak jàngalekat yi ndax ñenn ñu ne lañ nekk buñ toogee moom lañuy ñuy waxtaanee ñenn ñu ne lañ nekk buñ toogee moom la ñuy waxtaane bu fekkee jataay yëpp ndaw ku ndaa yi <laughs> imaam Abdoulaye Ndaw ñoom bu jataay ba balaa tas ñu ñu àgg ci mburu walla ñu àgg ci ganaar waaw àgg ci mburu wala ñu àgg ci ganaar bu dee sëfoor si ñoom lobaat balaa kàddu daaneel ñu àgg ci camion sama troisième baag ba mu ñëwee ci tournal baag yooyu la ñuy waxtaane bu dee tailleur yu noonu waaye bu dee jàngalekat yit ñanga ca njàngale ma adi sàngam aya sàngam nii laa ko dégg nii lañ koy firee kon di toog ak ñoom daf lay yokk waaye beru bàyyi leen fa toog feneen day tax sa sa alliwa wàññeeku day tax sa alliwa wàcc te loolu nag baaxul ci jàngalekat bi ci mujj ci conseil yi may jox sëriñu daar yi <laughs> xaw ma sax sañ naa ko déet waaye noonu rek laa ko mën a tudde mooy dirasa wa fahmil quran wa siira an mooy foo toll del yokk sa alliwa ci ni nga dégge alquran foo toll del jàng siira bul seexlu benn siira jàngal siira yëpp mbokk yi lef mii laa indi woon pour jagleel ko sëriñu daar yi lef mu njëkk ma mooy liñ jagle woon jàngalekat yi école yi ñoom ñëpp nag ay jàngalekat lañ man mii ci ñoom laa bokk ñu bari ci yéen ci ñoom lañ bokk Arfan Seck mais nekk Thiès <laughs> yal na ko yàlla yokk wér ci ñoom la bokk waaw inspecteur la ca njàng ma ak tabarkalla yal na yàlla sàmm nu sàmm leen aar nu aar leen def jàmm ci réew mi réew yu ko wër ñu ngi jégalu soxna yi di jégalu euh, sëriñ si